Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.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 démbi Afrique wala magi Afrique yi tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci ak nguur gu am solo goo xamante ni mën nañoo wax ni lislaam bu fi tasaaroo fii ci Afrique soow jant dëgg dëgg tasaaroo njàngaleem lislaam tamit fi fiq tasaaroo fi langu arab làkku arab tasaaroo fi ah, loolu li ci ëpp ñoom ñoo ko def muy état buñ doon wax almurabitin <clears throat> tubaab bi deen wax almurabit almurabitin nag ñu jële ko ci baatu ribaat ribaat di tegtale sax ci benn barab ngir jaamu yàlla wala sax ci benn barab ngir jihaad fi sabilillahi wala sax ci benn barab ngir wattu <clears throat> xormay jullit yi wattu seen frontière ba noon yi duñ fa mën a jaare ba song jullit yi mu nekk mëcc nekkoon mëcc moo xamante ni mu lislaam fonk la yenent bi sallallahu alayhi wa tagg mëcc moomu lool ñaax ci jullit yi euh, jullit yi yittewoo woon ko ba am na dëkk bu mag bu siiw ci dëkki jullit yi jamono bi dëkk boobu ñu ngi ko tudde ar rabat muy rabat di capitalu <coughs> capital politique bu Maroc euh, almuraabituun kon mooy ñi nga xamante ni dañoo saxoon ci benn barab di jaamu yàlla di sellal seeni bakkan di waajal seen bopp ngir fas yéene liggéeyal yàlla euh, danañ leen tudde tamit almulasamin mulasamin mooy ñoo xam dañ daan muur seen kanam yëpp bam de seen seen xar kanam ba seen bët yi dong mooy feeñ euh, ñu nekk aw o xeet ñu nekk aw xeet woo xamante ni ñu ngi bokk ci san sanhaaja giir gu ñu wax sanhaaja sanhaaja nag yenn boroom xam-xam yenn boroom xam-xam yi gëstu ci wàllu taarix dañuy jàpp ni aw xeet la woo xamante ni ñu ngi jóge ci ximyar jóge yaman euh, waaye ñoom ñi ëpp ci ñoom dañuy gëm ni ñoom ay berber lañ euh, duñ ay ximyar yin seen cosaan cosaanu berber la ca berber ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo dëkkoon Afrique du Nord fi ñu tuddee Maghreb arab ñoom ñoo fa dëkkoon jamono yi lislaam di dugg <coughs> ci réew yooyu euh, muraabit yi amoon na ñetti giir waaw ñetti turbi yu mag a mag yoo xamante ni ñoom ñoo duggandoo ci lislaam euh, ci troisième siècle ci li gën a wér muy lamtu na ak masuufa ak jidaala nekkoon ay buur taxawal seen état euh, nekkoon sangi désert bi mooy fii nga xamante ni mooy désertu Niger bi euh, ak euh, lenn ci Fazzan ak désert désertu bi ba ci Mauritanie foofu la seen état yi nekkoon am seen benn kilifa benn buur bu ñuy wax Yaxya ibn Ibrahim Jidaali <coughs> doon aji boobu ci cinquième siècle la ci juróomeel xarnu bi gannaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon aji euh, jaar dëkk bu ñuy wax Kayra Kayrawaan ci Tunisie ñu koy wax Kayrawaan dëkk boobu nekk dëkk bi nga xamante ni ki ko taxawaloon mooy Uqbatu bnu mi ñu waxoon mu nekkoon dëkk xam-xam nekkoon capitalu xam-xam ci Maghrib arab gépp bi rombee Kayrawaan jaar ci benn boroom xam-xam fiq bu mag bu doon wax abu imran alfaasi nekk ab faqih maliki doon jàngale doon def ab darsu mu toog déglu darsu bam noppee mu seetlu ñooña nañ lañ doon dunde diine wuute lool ak ñoom ñi nga xam ne ngi ci désert bi nekk ay arab ni ñuy dunde nekk xeetu xeetu daanaka xaw a mel ni arab yi ni ñuy dunde diine daati ñaan booba la ñaan abu imran alfaasi daan ni Euh, teem ko booleek euh, benn boroom xam-xam boo xamante ni day ànd ak moom euh, dem ca dem ci seen dëkk ye jàngal leen diine ndax ñoom kat lañuy ñuy dund du diine dëgg-dëgg ci la Abu Imran tànne Abdullah ibn Yasin tànnoon na ñeneen sax waaye ñooñu mën naa am lam bëggoon <coughs> dajewul ci ñoom Abdullah ibn Yasin tamit seenu xeet la mu nekk ab faqih maliki mu tànn ko boole kook ñoom Abdullah ibn Yasin ñëw Abdullah ibn Yaasin dañ ni borom xam-xam histoire yi neen bi njëkkee ñëw ci ñooñu mooy waa sanhaaja yooyu bi njëkkee ñëw ci ñoom ñoom xeet yooyu dañoo nanguwuñu lim leen doon woo nangu nangu nanguwuñ ko ànduñu ak moom euh, Abdullah ibn Yaasin continuer ba àgg ci benn jazira benn île boo xamante ni dañ ni euh, dexa nga fa géej nga fa lu xaw a ru île boo xam ne dex nga fa géej nga fa borom xam-xam yi li histoire yi saxal nañ ni foofu mooy ndar fi ñuy wax ndar tey jii foofu la Abdoulaye Yacine campé wu ànd ak yenn dongaam ak ñi nang ñi ko nangul ci eh, nit ñu ñuul ñi di leen jàngal leen yar ci diine ba tàggal leen ci diine gannaaw bi leen tàggatee ci la leen yónni nag ñu nekk ay doxaat di woote ci di ci diine léegi almoravid yi ñëw tamit continuer dem ba. Euh, Ghana booba empire Ghana mooy empire bi gën a mag ci Afrique soowu jant euh, xeex ak waa Ghana daaneel empire ba euh, tasaare fa lislaam tasaare gu wér a ndax lislaam amoon na fa sax waaye tasaaroowul woon ni mu war a tasa tasaaroo bi fa lislaam tasaaroo ci la buuru gana mujj nekk moom tamit ab jullit bu wér boo xamante ni day jihaad loolu Ibnu Xaldun ma ngi wax wax naan maliku gaana daa iman ëdda doon ne nekkoon koo xam ne toujours day jihaat ak yéefar yi yéefar yi dëkkoon ak moom euh, noonu lañ def ba Abdullah ibn Yasin continuer mission euh, moom nekkul woon njiitu njiitu muravid yi ci moom côté diine jila yoroon ak xam-xam bi amoon na ku ñuy wax Aboubacar ibnu Omar al-Lamtouni moo jiite woon eh, armée beeg guerre bi Aboubacar ibnu Omar al-Lamtouni moom foofa la des maanaam ci eh, su Afrique soowu jant ci ci la des maanaam bi mu faatoo nag eh, état bi xaw a yëngatu bi mu xawee yëngatu daanaka li ëpp ci seen armée bi nekkoon Afrique dellu dem Maroc biñ demee Maroc dajeeg tamit Andalousie yëngatu bi Andalousie yëngatoo. Euh, am na benn buur bu newoon dëkk bu ñuy wax Ispilia ci Andalus ñu koy wax tey jii Sébi buur boobu moo sàkkoo woon ci njiital Moravide yi ki nga xam ne moo mujj jiite Moravide yi moo jiite seen état bi jiite ñaari branche yëpp branche politique bi ak euh, militaire bi ñu ko doon tuddee Youssouf Ibn Tachfine nekkoon Marrakech gi euh, ci Maroc ci la ci la sàkku ci Youssouf mu ñëw si jàppale leen ci lañ dem jàpp la ji Yusuf Mumtaz ci lañ dem jàppale la ji euh, buuru Ispile jàpp la waat jullit ya desoon Andalousie ci euh, mille quatre vingt six te yooyu mille quatre vingt six ci euh, ate Isa Seydina gën a gën a àdduna Seydina Isa ca boo xoolee mille quatre vingt six comparé ko digganteem ak mille euh, quatre cent quatre-vingt-douze gi nga xam ne ci la euh, jullit yi jee ci la ci la seen état jeex Andalousie dëgg-dëgg ci la espagnol yi ak portugais yeeg yeneen ci la ñëwaat jël Andalousie définitivement da ngay gis ni lu mat ñetti téeméeri at yu tegal la kon Moravide yooyu ñoom fexe nañ ba Andalousie ba mu ba mu waree daanu ba fa mu naroon a daanoo daanoo daanoo wu fa. Euh, ña ngi wax sax ni euh, armee boobu nga xamante ni yi moom la ñu yóbbu woon ngir sauver àndul armée boobu euh, bari na ci ñoo xamante ni ay africain la yoo xamante ne ay noir yu tuub dugg ci lislaam ala ayati xaal Mouravide yi li ñu yitteel ci Mouravide dëgg dëgg mooy seen jeexit bi nga xam ne bàyyi nañ ko Afrique soowu jant kon jeexit yooyu li ci ëpp ci ëpp solo mooy fexe nañ ba lislaam tasaaroo njàngaleem lislaam tamit tasaaroo Euh, fexe nañ tamit ba taxawal ay dëkk yoo xamante ni dëkki xam-xam la dëkk yoo xamante ni dañuy laxas di fa jàngi bu njëkk bu ñu jàngi diine jàng xam-xam da nga doon dem Fès wala nga dem Xayrawaan bu dee ni yaa ngi nekk euh, ci af Afrique Afrique Afrique du Nord wala nga dem Qahira Caire wala nga dem Hijaz waaye ñoom fexe nañ ba taxawal ay dëkk yoo xam ne dëkki xam-xam la bi ci jiitu mooy Tombouctou ñi ko sos ñan lañu ay tuwaarig lañ tuwaarig yi ci xeet wii lañ bokk ñoom tamit ñu sos ko ci onzième siècle euh, mu nekk dëkk boo xamante nii dëkkub xam la lislaam dëkkub lislaam la lislaam ko sos euh, am na bindkat bu mag boo xamante ni ci ñi euh, gën a bind ci histoire ci histoire Afrique soowu jant la bokk cam dëkk foofu tamit cam dëkk Mali nekk dëkk Tombouctou nekkoon doon dund ci dix-septième siècle ñu koy wax Abdourahmane Saadi bind téere bu siiw tudde ko taarixu Soudan mooy istiwaaru nuwaar yi ma ngi wax naan al baldatu al tayibatu ma danna sadha ibadatu l wala sujida ala adimiha li gayri rahman nee na dëkk bi muy Tumbuktu dëkk la boo xamante ni dëkk bu sell la dëkk bu laab la boo xamante ni mësee su fa ah, jaamu xërëm mësee su fa jaamu ah, la woon tamit ñeel wàlli yi dëkkuwaay la woon tamit ñeel borom xam borom xam-xam yi ak ñëpp ñoo xamante ne dañuy xeeñtu lu baax amaat beneen dëkk boo xamante tamit dañ koo taxawalaat foofu muy dëkk boobu tudd dëkk Jénne Jénne boo demee Mali ba léegi dëkk boobu mu ngi ma nga fa tudd Jénne euh, Abdourahmane Saadi di wax tamit naan dëkk la boo xamante ni dëkk bu yàlla barkeel la madinatun mubarakatun maymuna naan waqad saaqallahu li hadihi al madinati naasan min gayri ahliha min qabaila shatta wa biladin shatta dëkk la boo xamante ni suñ borom da koo baaxe indi fa ay nit ñoo xamante ni ñu baax lañ ñenn ñi sax cosaanoo wuñ fa kon loolu la muraabit yi njëkk a def Afrique sow jant beneen bi mooy tasaare li ñuy tuddee mazhabul maliki yi fiqhul maliki yi euh, ndax commerçant yi nga xamante ni euh, ñoo doon yaxantu ci Afrique troisième ci troisième siècle gannaaw gàddaay gi commerçant yooyu wér na ni ñi ci ñi ci ñi fi njëkk agsi wala ñi ñi fi ñi ci gën a siiw ñooñu nekkuñu woon ci mazhabu imam malik ñoom ñu ngi nekkoon ci mazhabul ibaadi ya mooy ngiiru ibaadi mazhabul ibaadi ngir la goo xamante ni ma ngi soqeekoo ci xawaari ji ngir la goo goo xam ni yaatuwul lool ci àddina bi fi mu toll nii dëkk bu ñuy wax saltanatu amaan ca golf ba ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci askanoo askan woo ak boo ñëwee ci Afrique du Nord comme fu mel ne Algérie boo demee berber yi euh, ñenn ñi ay Badia boo demee Libye yenn ci berber yi ci fu ñuy wax jibaalu nu jibaalu nafuusa ñoom tamit ay ibadiyel kon ñi njëkkoon a ñëw Afrique ba direct ci commerçant yoo xam ne ay ibadiyel waaye bi fi Mouraabi di ñëwee ci lay mazahib yeneen yeneen xeetu doctrine yi yeneen xeetu idéologie yeneen xeetu école yi yeneen xeetu déggin yi yëpp ci la disparaître léegi bu Malik nekk fi loolu moo tasaare téere yi Malik gannaaw téere yi imaam Malik ak téere yi taalibe imaam Malik yi looloo leen tasaare Afrique soowu jant boo delloo ci téere boobu ñuy wax taarixu Soudan da ngay gis ni Abdourahmane Saadi da doon wax naka lañ doon jàngalee foofa ca jaam ca ca université Sankore nan lañ fa doon jàngalee ca Tumbuktu doon wax naan téere yi mazhab Malik téere yooyu dañ dañ daan jàng mu watta nee na jàng mu wér di jàng mu dawwana yeneen téere yi nga xamante ni borom xam-xam yi Maalik ñoo ko bind comme lu mel ni téere Qaadi Iyaad Shifa ak Ikmaal ak ak ak Tartil Madaar yooyu yëpp dañ ko doon jàng ak di ko nafar lépp lu aju ci mazhabu Maalik euh, dañ ko doon jàng jàng mu wér a wér kon ñaareelu. ñaareelu euh, jeexit bi nga xam ne muraabi di bàyyi nañ ko Afrique mooy tasaare mazhab Malik ñetteel bi mooy tasaare làkku arab làkku arab euh, donte ay muraabi di ñenn ñi dañ naan seen cosaan wala euh, duñ ay arab waaye fexe nañ ba biñ fi ñëwee arab tasaaroo fi tasaaroo goo xam ne gis nañ ni sax buur yi buur yi wuur yi kon Afrique jamono yooyu dañ daan dégg arab ndax danañ gis ni. Eh, am na benn buuru jullit bu mag a mag boo xam ne dafa nekkoon Mali ñu koy wax Kanka Moussa aji woon eh, benn boroom xam-xam benn historien di bindkat ci littérature eh, bu dëkk penku day ku ñuy wax Qalqashandi ci téere bu wax Subul Ansa day wax naan ba mu ñëwee Égypte euh, nee na euh, kaana laa yu xaddisuna illaa bi bi tarjumaan buy buy wax ak ñun dañ koy traduiral dañ koy traduiral dañ koy tekki li muy wax waaye nag déggoon na arab déggoon na arab dégg kon tasaare lakkal ñeenteelu jeex bi mooy tasaare fi njàngum imaam Naafi mën nañoo wax ni daanaka ci ñoom la tàmmalee imaam Naafi ci wàllu njàngin alquran yi euh, xam nga jàngin yi bari na waaye jàngum imaam Naafi moo boole warsh ak qaaluun Euh, juróomeel bi ci jeexit bi mooy bind tasaare fi bind alxatul maghribi comme ni ngeen xamee ni xeetu bind yi tamit dafa dafa bari am na andalusi am na beneen ak beneen waaye nag muravid yi maanaam ñoo fi tasaare xeetu bindinu Maghrib bi nga xamante ni ñun Afrique soow jant ñun Sénégal noonu la ñuy bind noonu la ñuy bind kaamil yi noonu la ñuy bind ba tey alquran ji buñ koy bind faagi gi tomb bi nekk ci suuf benn xaaf bi nekk benn tomb ci kaw loolu lépp muravid yi ñoo ko fi am na sax yeneen yoo xamante ni indi nañ ko fi waaye xam naa euh, jataay bi dafay dana dana xar ci ci ci faram-fàcce ko euh, waaye ñu tëjee beneen jeex bi nga xam ne bàyyi nañ ko fi muy tasaddud mooy ab ab taral lool ci appliquer charia islamiya ah rawatina sha'air yi mooy ni ñuy joxe xeetu jaamu yàlla euh, ñëwee Afrique. lim njëkk a jàngal nit ñi moom mooy nañ respecté waxtu julli jul di ko defee di ko joxe ca mbooloo ma euh, daa di indi benn loi boo xamante ni loi boobu li ci nekk mooy képp koo xamante ni tardé nga julli ca mbooloo ma tardé nga julli euh, dees na la caw luy tollook fukki yar looloo nag ñu ngi ko euh, balaloo ñoom ci dégginu maaliki yi nga xam dañ naan muru awlaadakum bi salaati li sab'in wadribuhum biha li ashrin euh, dee leen digal seen xale yi ñuy julli buñ amee juróom-ñaari at euh, da ngeen àgg sax ci caw leen ci di leen door bu fekkee am nañ fukki at ba pare euh, bañ a joxe julli gi kon ci gàttal daal li ñii ñooy almurabit yi seen jeexit lii mooy seen jeexit ci Afrique incha allah seen jeexit dana gën a feeñ ci état yi nga xamante ni taxaw na gannaaw Mouravid yi euh, ñu gën cee ràññee euh, li ñu tuddee euh, mamlakatu Mali al islami royaume islamique bu Mali ak royaume bi koy wutuwaat muy royaume bu Songaay. incha allah fas yéene nañoo àndaat ak yéen suba ci waneen waxtaan woo xamante ni ci la ñuy tàmmalee nag ci lay tàmmalee yaatal <coughs> ak leeral. ak jukki lenn ci magi lislaam yi nga xamante ni Afrique xam na leen jërëjëf ñu ngi ñaan su borom subhaanahu wa taala mu barkeel euh, jataay bi <coughs> nangul ñu tamit suñu koor gi euh, fanaan leen jàmm <coughs>